Mamito Nakamura maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Hawa. alors ngay chargé euh, de communication wu. Mamito Nakamura maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Hawa. alors ngay chargé euh, de communication wu réseau féministe yu nekk fii ci Sénégal di njiitu tamit kuréel gi ëmb jigéen rek muy réseau goo xamante ne moo ngi féetee ca Louga euh, tey nag ñuy màggal bés bi nga xamante ne ñoo ngi ko jagleel ak gëleefu jigéen ñi ban bilan nga mën a def rek ci xeex gi nga xamante ne daanaka ñoo ngi koy def fii ci Sénégal. alors bilan la boo xamante ne nii pour l'instant mën na ñu ne bilan bu bu bu positif la dans un sens euh, parce que militantes yi maanaam jigéen ak ak euh, surtout jigéen ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñoo sasoo euh, euh, défendre lii de ak ak yële fi jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi fii ci Sénégal ñu ngi sur le terrain di continuer di def liggéey bu mucc ayib donc fii ñu toll ci mois de mars deux mille vingt quatre bi fii ci Sénégal. des na li ñu war a dolli bari na lool mais li ñu am tamit bu ñu ko fàttee li nga xamante ni jot nañu ko xeex ba euh, am ko ci wàllum société ak aussi ci wàllum euh, ci wàllum état donc bilan bi mën nañu ne euh, mi ngi fi am nañu bilan certes mais des na lu bëree bëree bëree bëri loo xamante ne nii war nañ ko war nañ ko accomplir war nañ ko matal jëmale ko ci wàllum ak ak yelleefi jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi fii ci Sénégal. mu doon occasion yi tamit ñu fàttali rek li nga xamante ne mooy xeex gi ñu def euh, jëm rek ci euh, fexe diggante góor ak jigéen ñu ménkale leen euh, lan mooy ci say préoccupations rawatina ci weeru mars bi de. alors su ma ci su ma ci am jaaxle peut-être mooy que ni ci wàllum ak ak yelleefi jigéen mën nañu sax jaxle gi ñu si doon am jot na wàññeeku bu baax. parce que lu dem ci wàllum xamle euh, jigéen ñi seen àq ak seen yelleef ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib parce que euh, Sénégal yamul rek Dakar ci biir région yi tamit dañu fa soxla euh, ci wàllum sensibilisation googu wax ak jigéen ñi lan la leen seen yoonu réew may lan mooy seen àq ak yelleef ba ko ñoom ñu mën koo topp lu ñu mën koo respecté loo ñi nga xamante ni ñoom la ñuy ñoom la ñuy jokkalanteel bés bu nekk ci suñu biir société donc li ci gën a am solo mm-hmm. fi mu toll nii mooy euh, ñu arrivé à que jigéen ña xam d'abord lan mooy seen àq ak seen yelleef lan la leen seen yoon may bu ko defee bis bu ñu demee ba toll ci genre situation yooyu dinañu mën a défendre seen bopp wala ñu ëlbatiku euh, euh, jokkoo ak ñi nga xamante ne nii ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu pour ñu mën leen a prise euh, prendre en charge. Mm-hmm. donc njaaxle gi moom du fi jóge parce que ba léegi ñu ngi continuer di enregistrer ay cas de violence euh, euh, ak ci bu mën a doon économique soci sexuelle psychologique mais quand même nañu continuer. ci wàllum xam bi ak xam xamle jigéen ñi seen àq ak seen yelleef. jigéen ñi nag ñu ngi yëngatu ci secteur bu nekk moo xam ci aada ak cosaan politique wala sax koom-koom bi euh, tey lan moo war a nekk taxawaayu état ngir rek jàppale yi tamit jigéen yooyu lee ci seen initiative yi. taxawaayu état moom defe naa bu ñu koy wax tamit li ci li ci état war a dolli. parce que am na lu nekk déjà en place li ci état war dolli moo ëpp fuuf li ñu tegagum am na ay initiative yu bari yoo xamante ne ni ay fonds yu teg pour dimbali jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci yenn secteurs yi euh, euh, organismes euh, nationaux yi ak internationaux yi tamit mu ngi indi seen wàll ci wàllum formation professionnelle yu jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi transformation de produits locaux yi par exemple donc léegi gox boo dem initiative initiative yu mel noonu am na fa ngir ànd ak jigéen ñi gunge leen ci seen wàllum formation insertion autonomisation hmm. donc loolu yëpp mu am ay initiative lu ci mel ni ay 3FPT ak yeneen ak yeneen muy ay fonds euh, lu mel ne euh, DER les nano crédit tout ça existe na certes mais doyul dañ ko war a gën a renforcer surtout pour jigéen ñi nga xamante ne nii nekkuñu Dakar wala jegewuñu Dakar muy capital bi certes mais ñi ci zone yu reculé yi ci lañu bokk ñi nekk ci yeneen gox yeeg goxaat yi ci la ñu bokk nañ ko gën a décentraliser pour que jigéen ñooñu tamit nekk ci àll ba ñu war a mën a am ñoom tamit activité boo xamante ne nii bu weesoo mbay mi maanaam période hivernale ñu am activité boo xam ne dinañ leen mën a jàppale ñu ñu ñu def ko même bu ñu ko jaayul am ci xaalis dañ ko mën a defar dundal ci seen njaboot donc sakkanal seen poche. ngay jiite nag kuréel gi nga xamante ne euh, ñu ngi ko duppee jigéen rek muy réseau euh, bu jigéen yi nekk ca Louga tey yan action ngeen jotalal ngir mën a rek promouvoir li nga xamante ne mooy ak ak yelleefu jigéen yi nekk ci Louga. nag ca Louga euh, Louga sori na Dakar mi ngi a deux cent kilomètres et que dëkk bu nekk dafa am ay réalité am dañuy def de telle sort que action yi ñuy def. du du du du saafaan du safaanoo ak gëm-gëmu dëkk bi ak li nga xamante ne ni moom noonu la dëkk bi di dundee donc ca Louga dañoo jël ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy wooye ay bàjjenu gox muy ay jigéen ñoo xamante ne ni seen dafa mucc ay euh, ci gox yeeg goxaat yi jigéen ñi dañ leen a jox bopp danoo am ci ñoom confiance dañ leen di déglu te dañuy jëfee seeni wax ñu jël bàjjenu gox yooyu euh, toftal leen suñu wet di def lu ñuy wax sensibilisation avant que Badjani di def sensibilisation ñun defal nañ leen benn renforcement de capacité euh, notamment ak euh, boutique de droit euh, bu AGS bu nekk Kébémer bi ñu waajalee Badjani nag ba pare danoo tas ci biir dëkk bi di def ay causerie ay waxtaan ci gox yeeg goxaat yi maanaam ci quartier lu mu gën a ndaw ndaw dinañu fa dem waxtaan ak jigéen ñi indiluñ leen benn xam-xam mais dañuy waxtaan ak ñoom weccoonteeg ñoom ay xalaat ubbil leen suñuy bunt ba nga xamante ni bu leen dara jotee ci seen biir néegu sëy ci seen biir famille wala ci biir quartier bu ñuy bu ñuy dunde dinañu mën a ubbeeku waxtaan ak bàjjenu gox yi bu ko defee ñun derrière ñu indi suñu suñu suñu suñu suñu suñu jàppale euh, mën leen a prendre en charge comme il faut donc ca Louga mm-hmm. ñu ngi ci sensibilisation bi depuis l'année dernière depuis daaw ren nag ñu ngi ci euh, euh, benn partenariat bu ñu am ak le centre des jeunes filles ci wàllum formation professionnelle bu xale yu jigéen yi ak aussi ci wàllum accueil bi maanaam teeru jigéen ñi nga xamante ne nii dañoo leen a teeru leen toppatoo leen gunge leen ba delloo leen seen famille ci jàmm. alors daanaka sax yaa ngi dénoncé euh, jigéen ñi nga xamante ne léeg-léeg dañ leen di sàkku jaarale ko ci sa film bu yees duppee au nom du sang euh, tey jii nan la ñu war a def ngir mën a jël en charge jigéen yooyu le jigéen ñooñu le fu ñu mën leen a jël en charge am na ay structures yu existé déjà mais comme li ma wax sànq doyul. donc prise en charge boobu noonu parce que ku dundu wàllum siif day des ci sa biir bopp mm, amaana sa giiru dund parce que du lu ñuy fàtte donc ñooñu noonu gunge bi ñu leen war a gunge dafa war a nekk loo xamante ne ni dañ koy saxal donc ci film bi effectivement loolu la ñuy dénoncer euh, euh, di ci wax aussi ni jigéen ñooñ nga xamante ni yàlla dafa def ñu dund sàkku dañ leen a war a gën a gestu parce que nit a ngi demaale loo xamante ne nii amaana mënu koo wax mais bés bu ko waxee euh, ñu xam ne kii kat li muy dund metti na te dafa soxla ku ko ku ko ku ko tee dafa soxla ko gunge ànd ak moom ci ci ci wàllum dundam ba gën ko ñoŋal delloo ko ci biir ci biir ci biir société bi mm. donc loolu yëpp day tekki si li nga xamante ne nii man en tant que jigéen sénégalaise féministe loolu laa waatal sama askan mooy toppatoo sama askan euh, euh, ay yittey sama askan intérêt sama ma ciy dox di ci wax ba yàlla dañu ci defal ndam. alors est-ce que mën nañu wax ne xëy na am ngeen ay retour ci jigéen ñi nga xam te ne daanaka jot nañ leen sàkk. waaw waaw bu ñu defee ay ay projection à chaque fois bu ñu tegee film bi ba pare dañuy euh, def benn waxtaan boo xam ne ay professionnels ñoo koy def lu jëm ci wàllum yoon lu jëm ci wàllum wérgu yaram ak lu jëm aussi ci wàllum bopp mooy psychologie defe naa noonu lañ ko noonu laa ko mën a misaale donc saa bu ñu projeté ba pare dañuy waxtaanee lu jëm ci wàllum euh, euh, viol sàkku aussi prise en charge bi war a defal jigéen ñi am jigéen ñoo xam dañuy ñëw euh, peut-être ñii en public ñii en privé wax la ne la man ka dund naa lii ak li ak li ak lii bu ko defee heureusement qu'on a des professionnels yu fa nekk ñu jéem a enclencher euh, processus boobu noonu jéem leen a dalal jéem na a aussi xelal ba nga xamante ni nii seen xel dana mën a gën a dal ñu gën am ci seen bopp confiance maanaam seen confiance en soi bi dellu ba ñu mën a dox siggi ci biir ci biir société bi euh, àjjuma dinañu ko def àjjuma ak samedi bi ñu dem muy huit ak neuf dinañu ko def ca ca ca saint même format bi la bu ñu bu ñu ñu projeté ñu tegee film bi ba nit ñi seetaan ko ba pare ñu ubbi nag waxtaan bi hmm. yaakaar nañu ne bu ñu ko defee ca ca Ndar comme ni ñu ko defee Dakar ak euh, Ouagadougou dinañu am jigéen ñoo xamante ne ni dinañu am courage wax li ñu dund bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn euh, euh, gungente ba xel yi dellu si et que jigéen ñi mën a delluwaat ci seen ay kër ci jàmm. alors est-ce que am nay dispositif yoo xamante ni état wu Sénégal teg na ko ngir rek mën a jël en charge yi tamit jigéen yooyu lee nga xamante ne léeg-léeg dañ leen di sàkku. waaw defe naa ne am na am na am na am na euh, ay action yu état jot a def fii ci réew mi mais li organisme nationaux yi internationaux yi ak militants yi ak militantes yi def boo xoolee moo ëpp fuuf te ëpp gi mu ëpp taxul ñu ami moyen maanaam taxul ñu am jumtukaay yi yi war pour que ñu mën a doxal seen liggéey boobu noonu donc li ñuy xaar ci état bi à défaut de teg ay structure euh, euh, euh, lu ci mel ne ay AMO yoo xam ne ñun dañ leen di contacter des fois bu ñu amee yenn cas yi surtout lu jëm ci xale yi mooy que li nga xamante nii Euh, citoyens yi ak citoyennes yi ñi ngi koy ñoŋal ak seen ay partenaires ci territoire sénégalais bi état bi teg ci loxoom dooleel leen ba nga xamante ne nii dinañu mën a am ay ay ay ay jumtukaay yu mat pour di accueillir ñi nga xamante ne nii ñoom lañu la ñu sàkku euh, soit ñu jëlee ci ëmb wala déedéet. Mm-hmm. lu ci mel ni Maison Rose ba ca Géejawaay euh, day def liggéey bu am solo mais ay kër la yoo xamante ni war nañ leen mën a gën a dooleel am na. Kayam ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk euh, fële ca euh, Petit mbaaw am na aussi fii ci Sacré-Cœur muy ay maison d'accueil yoo xam ne pour jigéen ñi la donc am na yeneen ak yeneen yoo xam ne mën naa mën naa leen a citer mais li ci am solo rek mooy que état du Sénégal jéem a def cartographie boobu noonu maanaam identifier ñan ñooy structure yi toppatoo jigéen ñi ci wàllu woowu tamit indil leen doole dolli leen ay ay jumtukaay ba ñu mën a def seen liggéey. élection présidentielle bi ñoo ngi ko nam amal ci weeru mars bi yemoo ko weer bi nga xam te ne ñoo ngi ci màggal jigéen ñi euh, tey euh, boo doon am message booy adressé candidat yile war a dem ci jogante njiitu réew mi jëm rek ci ak ak yelleefu jigéen ñi lan la war a doon. dama naan leen ñun jigéenu Sénégal ñun famille sénégalaise li ñuy mooy suñu code de la famille bii code de la famille bii na ko candidat ñu dem ver lu ñu naan ñu saytu ko ba gën koo yeesal awa kër sax boo ci dëkkee fukki at wala ñaar fukki at di nga ko peinturaat mhm. wala di nga ko euh, jekk-jekkalaat ba mu gën a mën a euh, neex a dunde alors que suñu bi mu ngi daté de mil neuf cent soixante douze donc am na lu ëpp juróom fukki at suñu société yi ci diggante bi évolué nañu jigéen ñi évolué nañu on parle de de de de mondialisation de village planétaire donc am nañu évolution yu bëri ci suñu biir ay société te évolution yooyu euh, dañoo war a méngoo ak li nga xamante ne ni mooy euh, téere bi ñu tënk muy code de la famille sénégalaise donc li ñuy wax suñu yitte mooy code de la famille du Sénégal bi pas article tel ou tel ou tel mais que code de la famille bi ñu saytu ko parce que depuis 2016 ak maître Sidiki Kaba amoon na ay travaux yu defoon ak les parties prenantes yu ci mel ni AGS ba ñoom tamit ñu indi woon ay proposition ci article yu ñu identifié woon comme euh, euh, loo xam ne joxul doole jigéen bu baax proposition yooyu nañ ko génnewaat ñu ko saytu bu ko defee suñu code de la famille bi ñu gën ko yeesalaat ngir euh, àq ak yelleef fi jigéen ñi seen njaboot gën a mën a jëm ca kanam. lan mooy sa kàddu gu mujj ci bésu jigéen yi le di sargal di sargal euh, ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi bàyyi njaboot bàyyi liggéey bàyyi seen i bëgg-bëggi àdduna jël seen euh, temps yëpp consacré ko ci euh, ak ak yelleef di ko xeex di ci dégg lu ne nag muy ci réseaux sociaux yi ak feneen ak feneen waaye li gën a am solo mooy liggéey bi nga xamante ne ni kenn ku nekk si ñun waatal nga ko sa bopp bala nga koy waatal sa société. Mhm. jigéen ñooñu ak góor ñooñu ñoo ngi leen di sargal di leen massawu. ak ci lépp lu ñuy dégg muy euh, saaga yeeg menace yeeg lépp mais di leen ci mastaw di leen wax ne nañu gën a euh, armer seen bopp pour gën a avancer parce li ñuy def cause bu noble la suñuy jigéeni réew ñoo tax ñu du ko def te euh, bu doon lu ñu war a defaat suba man de personnellement dinaa ko defaat ak lu ma ci mën di fekk donc du sargal képp kuy xeex ak ak yellee fi jigéen di sargal jigéenu Sénégal ci seen njàmbaar ci seen ci seen ci seen wutum xam-xam jigéen ñaa ngi wut xam-xam muy école muy feneen ak feneen di sargal bu baax a baax a baax a baax jigéenu Sénégal bi ñaan ni année deux mille vingt cinq mars deux mille vingt cinq dina ñu non seulement enregistrer moins de cas de violence sexuelle euh, euh, de violence tout simplement ak aussi plus d'autonomie plus d'épanouissement euh, pour jigéen ñi nga xamante ne nii mooy jigéenu Sénégal di leen sargal bu baax ci mois de mars. Mamito Nakamura jërëjëf may fàttali rek ne yaa yor kàddu réseau euh, des féministes yu nekk fii ci Sénégal waaye tamit nekk njiitu kuréel euh, gi ñu duppee jigéen rek di réseau de femmes yi nekk ca Louga ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay